نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci sans limite ak suñuy plateforme digitale yëpp di leen ci dalal jàmm di leen jox seen wàccuwaay di leen itam ndokkeel ci euh, weeru koor gi nga xamante ne nii moom la ñu euh, nekk tey nag ñu am mbégte euh, daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo di Oustaz Tayib soose moom nag nekkatul ku ñuy présenté waa Sénégal mu doon nag waaraatekat bu mag ñu fas yéene nag sekk ak moom waxtaan lépp lu ñeel rekk wàllug koor ak tamit actualité fii ci réewum Sénégal laata lool rek Oustaz ginnaaw bañ la nuyoo ñu bàyyi rek nga nuyoonteeg internet ci les santé sans limite. ngi am mbégte di leen nuy yéen ñi di nuyu euh, internetu sans limite euh, di leen ndokkeel ci koor gi ci ramadan bi di ñaan yàlla nangu ñu sunu koor def ko ay at yu bare bare bare bari lu ñu ci woor ak lu ñu ci jaamu yàlla itam yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yaa ngi présenté ne waaraatekat non ñun dañuy fàttali wante fàttali wante kat waar moom yàlla koy def. waaraate dëgg yàlla koy def mooy yii xew ngay gis ni voilà mais ñun dañuy fàttali parce que alxuraan yàlla moo ne fàttali li danay fàtte danay dem ba àdduna euh, fàtte mais nga fàttalil ko yonent bi di wax ne jottalil même benn aaya soo ko xamee yoon la pour nga jottali ko kon ñun ay jottalikat lañu ay fàttalikat lañu mais waaraate moom yàlla moo koy def wax dëgg yàlla ajaam incha allah macha allah leeral yi am na solo oustaz suñu euh, laaj bu njëkk rek mooy que ni euh, dañoo nekk ci jamonoy koor naam sax nag jullit am na noo xamante ne ni moom lay euh, doxale rawatina nag ci wàllu koor ñu buggoon a xam foofu rek yan taxawaay la jullit war a am ci weeru koor. waaw weeru koor day weer la boo xam ne woote na ak yeneen weer yi xam naa ne bari na du xaj ci waxtaan bi mais daal boo ñëwee ki nga xam ne dafa gëm yàlla gëm yonent bi. comme que les cinq piliers de l'islam la da cee bokk parce que ñaari baati seede la shahadatu an la ilaha illallah xam ne loolu sa iman lay doon da ngay gëm yàlla gëm yonent bi mooy premier deuxième bi mooy julli juróom ngay koy respecté su la yàlla joxe alal nga génne zakat solidarité la dimbalante la ñeenteel bi quatrième pilier mooy shahru ramadan mooy weeru koor mooy bii euh, njëkkewuñu ko yeneen nation yi daan nañ woor alxuraan nee na yéen ñi gëm yàlla dama farataal ci yéen koor comme ni ma ko defee woon ci ñi leen jiitu pour su koor gi jeexee mun nga ci am diplôme bu ñuy tuddee taqwa taqwa diplôme la maanaam stage la boo xam ne su jàllee di nga am taqwa masalan euh, dañ da ngay bàyyi li ñu la daganal pour su koor gi jeexee nga mën a bàyyi li ñu la aramal par exemple bu fekkee jigéen problème bu jigéen la am nga soxna yaa am nga benn am nga ñaar yaa xam am nga ñett mais sa soxna daf la dagan mais bëccëgu weeru koor noo daf la xaram waaw ndégam li li nga moom bu dagan la nga mun koy bàyyi doo ko laal waaw rawatina jigéen joo xam ne boo koor gi jeexee kooku du sa soxna kon da ngay bàyyi li dagan pour su koor gi jeexee nga mun la mu dimbali la ci pour nga bàyyi lay xaram comprendre lekk ceeb ceebu jën ak yi ñuy añ nii mais dafa dagan weeru ataaya dafa dagan ñu ne la bàyyil ataaya parce que dafa dagan pour sa que bu fekkee da nga doon doon sàngara ndegam am nga kàttanu bàyyi li li dagan su koor gi jeexee xanaa di nga mën a bàyyi li nga xam ne lii dafa haram kon stage la boo xam ne su passé ni ko yàlla waxee laalakum tattaqoon su ngeen defee koor gi ci ni ko yàlla digle yonent bi digle ko su su koor gi jeexee di ngeen am diplôme mu taxawa taxawaa na ki ko am kooku mooy am martaba dugg àjjana yonent bi di wax ne ku or weeru koor ngir gëm yàlla doo woor ngir ngistal nit ñaa ngi woor damay woor gëm yàlla wa ixtisaaban ak bëgg ci yàlla fay la yonent bi nee na soo ko defee yàlla jéggal la sa bakkaar yu njëkk yi ak sa bakkar yu mujj yi kon da woor ngir imaan ngir gëm koor nag aja du bàyyi lekk rek ak naan moo ci gën a tuuti doomu aadama cëréem yëpp dafa war a woor sa làmmiñ dafa war a woor lu sa yoon nekkul loolu même bu fekkee ne sax du koor comportement la bu jullit war a yor rawati bu koor ñëwee parce que dafa yàqu koor xam nga dañuy jàpp ne soo wooree boo lekkee rek wala nga naan sa koor gi yàqu na non sa làmmiñ dafa war a woor sa bët dafa war a woor wax dina yàqu koor comme jëf jëf xool xool di seetaan lu xaram dina yàqu koor comme sa cër yëpp ñoo war a woor moo tax boo wooree Eh, wax dëgg yàlla jaadu woon na ci ab jullit sax avant muy woor lu ko intéressé wul bu mu ci dugg jëw nit ku fi nekkul nga ne ci deram amul chance hmm? su ko defee yooyu moom ngay def di ko boole ak di jàng alquran di tudd yàlla ak di dimbalante solidarité yi yonent bi doon na wax ni nit ki mun na fegal boppam safara jaar sa digganteek safara ci ci ci xaaju tàndarma xaaju tàndarma xoolal tàndarma ni mu yombee ma xaaj ko ci digg bi yow noo tudd Mariam ma jox la ko ma jox la benn xaaj bi nga dog ko man ma dogee benn bi loolu jaar sama digganteeg safar moccee tàndarma kon nga xam ne dama la bëgg wax ne la bul xeeb lu baax ci koor ki loo mën a def ci lu baax def ko bul xeeb dix francs dix francs jar na tàndarma bul xeeb juróom parce que li ngay xeeb nit ki mun na ci jënd buru dimbalanteel yónnent bi ku tabe woon la mais su koor gi ñëwee la daan gën a tabe surtout di jox nit ñi lekk di leen dimbali ci lu ñuy lekk loolu nit mun na ci liggéey lu rëy rëy rëy rëy ci bu koor gi ñëwee mu doon ay leeral yu am solo dégg nañ sànq ci sa euh, wax nga ne woor weesuwul rek wàllu bañ a lekk mais ci wàllu comportement itam euh, daf ci am solo euh, ñu gis ci ay jëmmi jamono ay xëy na xeex lañ ko mën a tuddee xeex diggante nit ñi ak takk der yi am ba ñenn ñi dem ci yenn boutique am lu luñ fa jël ko mu lekk yóbbu ko seen kër ndax loolu tey jii nii buñ ko utiliser pour xëy na dogee ko weeru koor loolu dina dina dagan. non sooy dog da ngay dogee lu dagan boo déggee ñu lekk. mooy li ngay joxe mooy lu dagan euh, alal joo sàcc mais daganul loolu yal ñu yàlla musal jullit booy dog da ngay dog ci lu dagan li yàlla jox te mu dagan ci ngay dog mais kenn du woor di dog ci lu xaram loolu xale yi xëy na def nañ ko muy émeute bi fa amoon dem jël toj ay Auchan yi demee noonu loolu sox defe naa ni jaax na takk ah loolu booy lekk nañ ko avant koor gi ñëw jaax na takk xëy na rafetul rafetlu wuñ ko rafetul liñ bëgg wax mooy sooy dog da ngay doo dogee alal ju sàcc wala alal ju ñu triyande déedéet loolu baaxul booy dog da ngay dogee lu dagan su ko defee yàlla mun lay nangul sa koor parce que ni woor daganee ak ni woor rafete dañuy bëgg sooy dog nga dog ci lu dagan dog ci lu dagan ndox yonent bi daana dogee tàndarma soo amul tàndarma mun naan ndox l'essentiel nga naan ndox wala nga làkk tàndarma nga dog su ko defee leneen la ngay lekk mu doon lu dagan mais alalu sàcc toj ay boutique loolu vraiment bëgg ci ko woore kooku sa koor gi boo ko wooree koo koor goog du nekk koor gu yàlla nangu parce que woor nga mais li ngay dogee da nga koo sàcc li ngay dogee da nga koo ci ay Auchan ak ay yeneen boutique te loolu sax jàpp naa ne jeex na fi mu nekk ne avant gi rafetlu wuñ ko nit ñi xale yi mënoon nañu mer te bu ñu toj deuxième bi bii mooy deuxième bu ma fekkee man fii ci Sénégal premier bi mooy 89 mooy année naar yi nii la meloon encore da kër goo xam ne dañuy wàccee boutique parce que fii pël fóote yi ñoo fi nekk léegi jamono jooju naar ñoo fi nekk que nit yenu ay saako yu ceeb dugal ci seen kër yi deuxième bi mooy mooy bii li ma bëgg a wax daal mooy nit bu wooree da ngay dogee lu dagan alalu sàcc kenn du ko doge alal joo chiif kenn du ko doge rafetul yàlla boom mu fi amati yàlla bu mu fi amati xale yi maa ngi leen di conseiller nañ di ñaxtu te alalu jàmbur yi ñu di ko bàyyi parce que loolu mooy li gën rafet wàllu mhm. tolling itam bëgg naa nga ñëw fa parce que euh, yaakaar naa ni am na ñenn ñoo xamante ne ni bu ñu génnee euh, solo muy weeru koor sax ak weeru normal dañuy fitnaal ñeneen ñi euh, loolu oustaz nga ci wax. waaw xam nga koor koor moom mooy jigéen jigéen ñi xanaa jigéen ñi la ñuy wax Sénégal góor ñi yiw nañ yenn jigéen ñi ñoo yiwati góor ñi yiw nañ de yenn jigéen ñi ñoo yiwati góor ñi deux pièces ngay tol wala nga sol pantalon ak chemise góor ñi du ñuy sol yu gàtt. xanaa booy yi ñuy tuddee seen bopp ñuy sol peew peew affaire góor jigéen la ñooñu waxu waxuñoo ñooñu mais li ma wax daal mooy góor ñi ci Sénégal yiw nañu pantalon chemise veste deux pièces moom la góor ñi sax kon bu ñuy wax coleen gu yiwat yi xanaa yenn jigéen ñi la ñuy wax jigéen nag bu xamoon boppam bu xamoon boppam dina muur ay cëram loolu mooy li am waykat bi day wax ne asamaan si avant muy taw day muuru bu ñuul kub mooy xeen bi la la bëgg a wax day buuru bu ñuul kub su tawee day bari gerte gi day def nangam jigéen asamaan la su muuroo rek ñu séentu ci moom aw yiw mu taw doom yu baax doom yu naat mais su muureekoo rek lu muree du taw wala bu tawee du taw taw bi du bari ndox kon yenn uh, colin yi defe naa ne loolu yenn xale yu jigéen ñi ñoo koy def te nag bareetul Sénégal sa classe gi a ah, ñu baax lañ de hein vraiment gis naa loolu fii boo ñëwee soxna yi fi ne nii gis nga ñëpp ay soxna la ñu loolu daal dafa mel ni daal sol yu bon yooyu léegi mu ngi commencé xewi léegi ba yaakaar ne sol yu gàtt finaalatul góor léegi dañu yaakaar ne day final gi finaalatul kenn parce que euh, loolu yéematuñu ki ñu yéem mooy jigéen ji yow waaye jigéen ji mureeku dafa am neneen noo koy considéré kooku da nga koy bàyyi fale soxla woo ko soxna soxla woo ko lenn ci àdduna na moo gën a yomb waaye doo ko doyee dara doo ko takk indi ko sa kër nii rien góor ñi mën nañ lay gis nii ngay ngay summeeku ñu ñu naan la nangam pour caaxaanee kaay la mais jamono bu ñu soxlaa jabar ku yiw lañ soxla indi ko ci sa kër ku yiw ci kooku la ñuy séentu njaboot njaboot bu baax kon ma yaakaar na itam doo xaar ba li ma bëgg bëgg wax daal man gis naa ne xale yu bari yiw nañ wax dëgg yàlla yaa ngi nii yiw soxna si nga àndal gis nga ko yéen ñëpp yiw te xam naa gaw ma ne xëy na weeru koor bi joué na ci mais gaw ma ne bu koor gi jeexee dingeen ngeen basarle seen bopp gaw ma loolu ah vraiment loolu la allah. Euh, solo ba tey nag ci wàllu koor ndax euh, l'islam ak sharia wax na ki nga xam ne moo war a woor ak koo xamante ne warta woor. waaw woor moom li ñuy tuddee baleex majeur day woor boo dee jullit ñaareel bi jullit xam nga dafa lu ne dafa am charte li tax nga war a mën a weeru koor mooy nga nekk jullit d'abord yow lay farataal ci moom. nekk major major jigéen ma góor moom major xam ngeen major major yaa ngi dégg bu fekkee ni itam wir wir feebaro weer wi fekkut la nga feebar fekkut la nga tukki su boobaa dangay ngay woor wax dëgg yàlla sa ka alxuraan daf ne woor leen mais daf ne boo feebaree bàyyil ba wér soo tukkee bàyyil ba wér kon gis nga yàlla ni mu yombalee yëf yi woor leen soo tukkee nga xam ne gan nga bàyyil dogal ba ñibbi sa kër bu koor gi ñëwee fekk la nga feebar fajul naan say garab boo wéree nga faj nga fay soo dee jigéen da nga ëmb ëmb boo xam ne boo lekkul dangay ngay néew doole wala sa doom dafay loru islaam daf na la lekkal wala nga am doom ba pare te soo lekkul doo am meew doom jiy loru islam mu ne la lekkal naanal pour nga suwe sa doom jooju jamono bu xale bi fere nga di ko fay fay bi nag par étape yàlla yàkkamtiwul ñaari fan ñetti fan ñeenti fan kon gis nga kor nekkul loo xam ne wax dëgg yàlla euh, lu jafe la wala lu ñu lu ñu fitnaal la ñëw na daal majeur nga jullit nga wér nga tukki waloo dëkk bi dara jotu la boo dee jullit nga war a woor tam ñoo xamante ne dañ ne duñu fay ko ndax duñu fayanteeg yàlla ustaas loolu lan nga ciy wax loolu waxu caaxaan la rek euh, waxu caaxaan la du ma fay koor parce que du ma fayantoog yàlla loolu seen waxi bopp la soo dee jigéen ñoo ci gën a bari ci di fay koor jigéen dafay indisposé yàllaa ko def moo xam boo indisposé fan yooyu dogal jamono bu koor gi passé sa sept jours la six jours yaa xam ñaat jours la day ko woor par benn benn yàlla yàkkamtiwul waxul la ne fay ma six jours yi wala dix jour yi ko par deux jours diggante ramadan ba ramadan onze mois war nga ci mën a fay six jours yi wala sept kon da nga koy fay loolu la du question yàlla ngay fay mais sa bopp ngay fayal parce que 30 jours lañ la laaj wala 29 jours yàlla teg na la ngant ngant la bu yàlla teg jigéen ñun góor ñi loolu daluñu mais yàlla def na ko jigéen na la bàyyil bul woor bul woor julli imaginel koor gi ngay fay mi julli gi danañ la bul ko fay xam nga julli gi dafay bari imaginel euh, bu fekkee cinq jours la 5 jours chaque jour nga war a julli 17 rakka waaw loolu bu dee 5 jours ñaata la islam bëggut lay sonal. mu la julli gi bu ko fay mais koor gi sept jours la day ko fay di ko booleeg seeni julli xam nga kooku yàlla def ci dugal yërmande imaginal ajaab fekkoon def na la fayal koor gi fay julli gi jamono booy julli ngay julli da ngay sonn mais mu la bàyyil julli gi te nga fay koor gi loolu nag. sax dugal benn question te mooy que ni su ma juumul dañ ne julli euh, moom moo gën a foor weeru koor mais euh, jigéen bu gisee mbaax. xëy na day fay koor mais du fay julli lool noonu lan moo tax oustaz waaw loolu ndimbal la bu yàlla def yërmande la cadeau bu leen yàlla def la ak bañ leen di sonnal alquran day wax ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla lim bëgg ci yéen mooy lu yomb bëggul ci yéen lu jafe moo tax ma ne la tey bu fekkoon sept jour la jigéen di indisposé boole koog julli yi chaque jour nga bëgg a fay 17 rakka booleeg jour bi jour yi nga koy fay mais loolu ajaa di nga sonn di yàlla ci yërmandee mënu la bàyyil ràkk yi julli yi te nga fay koor gi rek loolu facilité ak yërmande yàlla ak woyofal gu yàlla boole defal ko jigéen ñi la loolu wax dëgg yàlla loolu mooy li ci am hmm? voilà loolu mooy li ci nekk parce que itam yërmande la rek ndax yàlla nee na jafewul dama leen bëgg a dama leen bëgg facilité bëgguma leen di jafeelal moo tax mu woyofal loolu ndax loolu li tax yàlla def ko jigéen yàlla moo xam li jigéen di jur a tax góor jurut li jigéen di jur moo tax muy indisposé mais góor ñi juruñu moo tax ñoom du ñu indisposé loolu ci liggéeyu sunu borom la ci liggéeyu yàlla la bokk comme que nag am na ci te koor gi bu ñëwee vraiment doo ko mën a boole koor parce que setoo ni ñu koy waxee daf naan la bàyyil bu koor gi setee bu koor gi jeexee nga sangu sangu ba pare set sangu set la ñu wax de sangu set ba pare nga doog a continuer fay koor gi mais julli gi moom kàddu la boo xam ne yàlla moo la ko may bonus la wax dëgg yàlla macha allah leeral yi am na euh, solo ñu tëj pàcc boobu daal dugg ak yow ci beneen euh, te mooy que ni jamono ji bëri na lu ñuy tudd mbir euh, borom ñaari tur fii ci réewum Sénégal moo am nag benn kuréel boo xamante ne nii ñu dippee ànd sàmm jikko yi daal di jug rek ne dañuy signer pétition daal di rek ñaan ngir asaka ñu ab projet de loi boo xam dañ koy yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu voté ko daal di criminaliser li nga xamante ne moom moo di wàllug euh, borom ñaari tour euh, fii ci réewum Sénégal ñu bëggoon a xam yéen yi nga xamante ne nii dañ leen fi teg ngir ngeen di fàttali euh, julli di ndax yéen a ngi sentir seen bopp wala boog yéen a ngi dugg seen loxo ci xeex boobu. waa xam nga góor jigéen yàlla ko njëkk a criminaliser ñun en tant que musulman. te itam ñun du ñu tëb rek ne yàlla criminalisé nangam te gisuñu ko alquran mooy livre bii nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy wax muy waxal lislaam moo ko criminalisé loot yonent yàlla loot kay te tur sax lañ ko tuddee loot liwaat mooy góor jigéen liwaat mooy góor jigéen loot comme que jamonoom dafa tombé woon ak ñoom yooyu xew ñu tuddee ko yonent yàlla loot mooy liwaat dakk bu ñu wax sadum bi ñu koy def alquran nee na ñoom ñoo ko njëkk créé ñoo ko njëkk a def góor ñi di sëy ak góor ñi jigéen ñi di sëy ak jigéen ñi xam nga loolu lan la aja daa nga bona bona bona bona bona bon ba amatuloo foofu maanaam foo defee sa mbon mais jigéen ak jigéen góor a góor ak góor mënuñuy am bànneex xam nga lan la mottali caay-caay kese kese kese moo tax ñu koy def bi ñu ko defee yàlla bi mu leen di alag dafa def dafa def trans dafa dafa wëlbati suuf si wa jaalna aliha safilaha yàlla dafa def séisme séisme ay catastrophe naturelle la leen yàlla toroxale ba tax na Sénégal euh, nañu ñaan yàlla suñu assemblée bi woote ko buñ ko wootewul it islam moom criminalisé ko criminalisé na ko ka koy def moom la ne mais ki ko ki ko jegewut jegewu ko nii rek kooku yanam newu ci mais bu tasaaroo ci réew ay catastrophe rek moo fi xew ay musiba rek lay indil ci réew mi musiba yoo xam ne eh, ñi ci loru ñu ci bari seen yoon nekku ci alxuraan waxoon nañu ko moytu lekku leen fitna goo xam ne bu ñëwee du yem ci bopp ña ko créé wàllu ngóor jigéen buñ ko siiwalee ci Sénégal wala ñu naan ay liberté nit ñu ne leen sàmmal seeni liberté comme ñu ma dégg yenn amnistie ak seen wax yooyu yenn yi du liberté réew mu ne dafa am dafa am luñ gëm suñ aada dafa dafa ngëm suñ ngëm-ngëm suñ ngëm-ngëm dañ koy défendre mais du question sa ngëm-ngëm nit ku nekk nañ ko bàyyi ci turu liberté lu la neex def lu la neex mel déedéet loolu boo amee adduna bi day tas war nañ am loi yoo xam ne moom war a tënk man tënk la tënk ñun ñëpp ju tënku ci loolu tax réew yi di am constitution constitution pour loolu la tënk nit ñi mais bu fekkee dañ ne nit ku nekk nañ ko bàyyi lu ko neex def wala lu mu sentir mu def ko loolu loolu monde golo la lu ñuy wax euh, lam bi golo la ko jog daanu kon nañ wooti loi interdit ko parce que catastrophe lay indi ci réew waaw ah. taxawaay ci euh, mbir mi tamit ndax mën na koy. dañ koy denoo sax xam nga ñun duñu état ñun duñu état lii dina bon ñu ne la nangam bon na mais ñun yoruñu application loi loi ki koy appliquer mooy tribunal bi parce que dañoo def tribunal am ay juges am ay loi yu ñu woote ñoo ñu ñooy atte mais ñun amuñ droit di atte ñun bu ñu doon atte bu ñu doon atte bu doon charia la ñun dinañ ci am suñ xalaat dinañ xam naka lañ koy atte mais ñun. dañuy fàttali rek comme nga ñëw ci man laaj ma lu diina wax lii ma wax la ko ak di moytu ak di ci yar sama njaboot ñuy moytu di dugg ci yenn yi ñun loolu mooy sunu rôle ak ku yàlla baaxe bu tey soosé di wax nga dégg ko li nga xamu lool li muy wax nga xam ko jëfee ko loolu la ñuy def mais ñun yoruñu état état moo yore loi mooy appliquer loi mooy interdit parce que yaa ngi dégg ñu ni nañ fexe yóbbu ko assemblée ñu woote ko waaw buñ ko assemblée wootee loi boobu dañ koy indi ci tribunal dañ koy criminaliser comme ni ñu def drogue ni ñu def leneen ni ñu def leneen ma yaakaar ne criminaliser ko kooku moo gën euh, ànd sàmm jikko yi ànd naa ci parce que ñooñu bu ñu leen jàppalee développement Sénégal ci seen loxo la nekk mais bu ñu bàyyee lu ñu tubaab yi def loo ak lu ñu xalaat ñu def ko loolu Sénégal dafay tas yàlla da koy dafay dafay yàq réew mi loolu baaxul loolu loolu musiba la musiba la. itam euh, leer na xëy na laaj bu ñuy euh, mujjee rek mooy que ni Euh, gis nañu ne euh, mbokki jullit yi fii ci réewum Sénégal en tout cas euh, bu wàllug séentu weer ñëwee dañuy xaajalikoo maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñu ñoom lañ dénk wàll woow te nekk ci commission croissant lunaire bi bu bu bu ñu tollee ci jamono jii rek. dañuy xaw a xaajalikoo ba tax na ñenn ñi bu ñuy woor xëy na duñu ñu woorandoo jour koor yi tamit duñu ñu koreendoo loolu noonu tey ji oustaz Euh, boo ko gisee naka la lay def en tant que jullit ak tabaski mu yàgg fi lool ñuy ñaan yàlla di wax aousu billahi min sheytaan rajim di moslu ci sheytaan rafetul gënul rafetul gënul yàlla santaane wu ko yónnanti bi santaane wu ko dañ ma ciy laaj toujours du l'islam xëy na sax ñu ni Sénégal woor na Mali woorut ñun yooyu toujours mooy faral di am ci àdduna bi mais benn réew mooy Sénégal ñaar di fi am yàgg loolu nag yàgg na fi loolu Adja yàgg na fi lool ba tax na ñun ñi jogoon nañ ci commencement boo commission bii nekk fi defe naa ci ña ko sos lañ bokkoon pour doon xeex pour loolu dañ yàlla dimbaloon nañu réussir nañ ko fi ay at yu bari maa ngi rappelé benn année ndeysaan euh, imam Maodo Sylla boobu sax commission amagul maa ngi rajo Dunia dama doon def comme que rajo Dunia dafa ubbi man maa fa nekk dama am ay téléphones yoo xam ne ay ligne téléphone Sénégal yëpp di war di woote damay def su su su su su baraxlu ñëwee dama yoroon émission bu ñuy tuddee xam sa diina laajte ay question su baraxlu ñëwee damay boole ci question yi may laajte pour nit ñi di téléphone ku téléphoner tontu dama lay jox cadeau may laajte weeru wolof kan moo ma ko mën a waxal weeru wolof di téléphoné suñu paree ma fii ñu toll tey weer wii ñu toll kan moo xam nu mu tudd ak tey la ñaata fan baraxlu loolu ba ma koy def commission taxawagul ma di ko def di téléphoné di téléphoné di téléphoné ba koor gi ñëw tabaski am ku nekk puut piir piir pir ne gis na weer wi moom rek moom ma ko wax moom kenn kese moom ma ko wax ci ñiy téléphoné Sénégal yëpp comme que tabaski weer wi day feeñ nga dawal 9 jours 10 12 maanaam dixième bi ma daw dem ci ma imam Maodo Sylla boobu benn baas Diagne mooy directeur rajo Dunia comme que man la dénk les deski religieuses oustaz ya fa ne yëpp maa leen jox micro ku fa toog maa la fi indi mu jox ma benn rajo ne ma del déglu oustaz yi ku ci def lu baax nga bàyyi ko foog ku ci deful lu baax dindi ko foog te te xaw ma la loolu la may wax ma jël rajo boobu dem ci imam Maodo Sylla ne ko yow yaay imam ratib góor gi dafa daw daf ne moo Sayid Tayib Sayid Tayib non weer wi duma ci wax ma ne ko man maa ko doon séntu ci mooy yi ñu am baraxulu bi yëpp maa ngi posé ay question nit ñi am na ñoo xam nit ñi xamuñu weeru wolof nu mu tudd xamuñu ko xam nga lu ñu xam janvier février mars yooyu lañ xam xamuñu fii ñu ko fi xam bariwuñ parce que def na expérience bi ubbi naa entenne nit ñi di wax ñu bëri xamuñu ko ma ne ko kenn rek moom ma wax ne ma gis na weer wi te pir la wax ne fa la keroog maa moom ñoo ànd man ak imam Maodo Solo ñoo ànd dem ci bureau El Hadj Moustapha comme que ki nga xam ne daf na gis na weer wi piir la dëkk ñu laaj Moustapha Cissé ne ko question boobu est-ce que est-ce que leer na mu ne leerut ñu ne ko est-ce que Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh waa Tiwaawan est-ce que am nañ information bu ñu ne amuñ information bi kon vérifier nañ ko mais wérul ñu bàyyi man maa jël imam si la maa ko jëlee këram indi ko rajo Dunda ci studio bi ne ko yow en tant que imam ratib defal déclaration joxel joxel jour weer wi. du ma ko fàtte benn jour jeudi la imam Maodo Sylla la ñëw toog ci studio bi wax ne séentu nañ weer wi yëpp ci Sénégal gisuñu ko pam boo suñ ko gisul rek man ngay xam datu datu koor gi gis nga bi ñu wàccee studio daf ma jox numéro Birino Diatta Birino Diatta xam nga ko chef protocole Abdou Diouf moo fi nekkoon booba du du jamono ji may wax de imam Maodo Sylla la moo ma jox numéro Birino Diatta ma dugg ci cabine téléphone moo fi nekkoon cabine mu ne ma waxal Bruno Diatta ne ko na wax Abdou Diouf ne ko julli gi alxames la man maa dugg ci cabine woo Bruno jaata ne ko imam Maodo Sylla nee na nga wax président Abdou Diouf ne ko julli gi jeudi la ci sama effort yu bopp laa ko sama effort yu bopp laa lay wax ni booba commission amagul te loolu joué naa ko réussir ko man kenn kese kese kese bi ma jogee Dunia dem Sud FM fekk fa Bouchra Dieye ñuy invité Ahmed Iyane Thiam ñu wax ñuy waxtaan ci xalaat bi ñu créé commission boobu commission bii ngay gis ni wax la ne la ba ma ciy liggéey di ci am sax ndam booba wàllu commission amagul parce que dama utiliser woon moyens yi ma am rek parce que am naa rajo. day firndeel rek commission bi dañ leen fi teg rek waaye amul njëriñ. ah ah kay am na njëriñ kay commission bi am na njëriñ parce que réussir nañ ko at yu bari commission man dama cee bokk yu réussir nañ ko deux ans yoo xam ne Korité ak Tabaski yëpp Sénégal benn la koy def mais dafa mujj am faay xam nga lu lu yàgg rek am faay. par loo dugg ci ñii lay déglu du ma duglu ñële wala bu ñuy waxee te ñii waxut bu ñee waxee te ñii waxuñ du ma am sañ-sañu publier ko yooyu ci feeñ bi mu yàqoo nag man dama démissionné ne leen bàyyi naa Bouchra itam bàyyi Ahmed Iyane Thiam yàlla ko yàlla xare àjjana continuer ko dajale ay nitam ba pare continuer ko loolu mooy li ci nekk ah mais commission bi moom baaxoon na trop vraiment doon nañ def seen i effort eh, ñaari julli ñetti julli nag moom loolu moom defe naa yàgg na Sénégal am solo mooy yal na yàlla nangul ñëpp ñu woor mardi ak ñu woor lundi lay defe naa xaw ma lan mardi ak mercredi yàlla leen yàlla nangu mais li gënoon a rafet day mooy mooy ñuy defandoo surtout nag ci benn réew ñoo xam ne ay jullit lañu moo gënoon a rafet mais jullit ñi wóoluwante wuñu amuñu ñu ñenn dañ yaakaar ne tiijaan ya diina la ñenn ñi yaakaar ne muridi ya diina la ñenn ñi yaakaar ne ibadu rahman diina la ñàkk a jàng seen diina encore moo tax te yooyu ay tur la yoo xam ne tur la ay tur la yoo xam ne yépp ci l'islam la tege ay école la mais li ñuy jàngale mooy l'islam mais soo jàppee ne Ibaadu Rahmaan religion la jàppoon ne Tidiane religion la jàppoon ne Mouridien religion la tur yi wuute nga yaakaar ne façon bi ñoo ñoo wuute sa ñàkk xam la mais ñoom ñëpp ci islam lañ nekk benn diina la yónent yàlla Muhammad moom la ñu yàlla royloo mooy sunu yónent bu ko ñëpp royoon rek defe naa ne coow li du am mais bu ñuy waxee lii ñuy wax li ñii doyloo ñii ñii duñ doyloo ñi loolu moo indi problème bi Sénégal maa yaakaar ne yàlla na yàlla nangul jërëjëf euh, Oustaz euh, ñu ngi ci jeexintal émission bi ñu bàyyi la nga joxe say kàddu yu waaw di leen gërëm rek di leen sant di ñaan yàlla nangool ñu sunu koor nangool leen seen koor. Hmm? loolu mooy li gën te yàlla nangool ñu lépp lu ñu def ci lu baax yàlla na ko yàlla nangool nit matul yàlla ci yërmandeem daal yàlla na ñu yàlla àtte ci yërmandeem ak ci baaxaayam ba ñuy àtte ci suñu jëf ak suñu façon yéen itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale. incha allah. Euh, Oustaz Taib Socé ci yombalal bi di leen jaajëfal itam mbokk yi ñu doon seetaan di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا